Malick euh, Ndiaye moom yi ba tey euh, ci seen stratégie yi ñu teg rawatina nag euh, ci candidature Bassirou Diomaye Faye ak explication yi mu joxe ci article 57 ñëwaat. candidat le président Ousmane Sonko ndax xeex baa ngi continuer mais xam nga article 57 bi waxi naxa a xandang la jéem a lëndëm la mais li ma ci rassuré mooy sa montre que amuñu fenn fu ñu mën a bloqué candidature Bassirou Diomaye candidature président Ousmane Sonko amul fenn fu ñu ko bloqué moo tax ñu bañ ko jox parrainage ñoom foofu lañ sukkandiku ngir bloqué ko bañ ko jox wax parrainage malgré décision de mais xam na ne amul fenn fu ñu ko mën a bloqué euh, tey li am solo mooy L57 wax na naka la ñuy nekkee candidat wa ilaa benn parti moo lay investir wa ilaa coalition moo lay investir maanaam coalition boo xam ne minimum deux partis yu am récépissé légalement constitué wa ilaa nga nekk candidature indépendante ñoom nag encore une fois dañoo mooy dañoo mooy mooy dañu yaakaaroon ne ñun cuune nañ cuune goo xam ne candidature indépendante la ñuy quand même kenn si ñun nekkul candidat indépendant par des partis politiques légalement constitués ce qui fait que donc article 57 xaw ma kan lay éliminé waaye du candidat au Pastef donc Bassirou Diomaye Faye encore si jamais il insiste parce que ñoom fi mu ne nii ñoom ñooy choisir soit président Ousmane Sonko duma leen ñu lu normal la poulain wu président Ousmane Sonko duma leen duma yu métti mu nekk une humiliation internationale c'est à eux de choisir entre ces deux là mais à la kulli haal élection yi moom xaw ma ban article moo ci moo ñu si tere bokk waaye du 57 ndax boobu dafa leer naññ c'est-à-dire que boobu waru leen sax yéen di polémique ak di ci poser question parce que c'est assez clair dès l'instant que ñu ne du ñu candidat indépendant et des partis politiques jërëjëf euh, Modou Alaaji mel na ni euh, El Malick euh, li ngay wax tout à ak li mu yëkkati léegi si ay kàddu soxewul noonu. waa xam nga ñoom li fii lañu ñu faussé mbir mi maanaam dañu yaakaaroon ni Pastef moom leer na la rek ñëpp Sonko lañ topp buñ nee keneen rek parti ba tas parce que ku nekk day fëgg dënnam ne man la man la man la parti ba tas ñoom loolu lañ yaakaaroon maanaam foofu lañ misé woon mbir mi mm-hmm. yaakaaroon nañ ñi. bu ñu nee El day ñëw ne mana Biram euh, Souley Biram ne mana Abbas Abbas ne mana kii ne mana ku nekk kii bu ko defee parti ba tas na ñu ne léeboon lippoon amoon na fi daan am ñii nag wane ni ñoom dañu suddewu euh, ñoom benn lenn lañu bokk muy lenn lii manaam ku ca ne la nga xamante ni bi ka nga xamante ni kii euh, moom la Ousmane Sonko joxañ rek kooka la ñeneen ñi moom amatuñu question bu ñuy poser doxalatuñu dara boo gisee El Malick ni nga xam ne noonu la taxawee di défendre candidature Sonko mhm. noonu lay défendre candidature Bassirou Diomaye kon problème amut boo dégloo Birame Souleye lool la boo dégloo kii loolu la ñoom ñëpp noonu la donc lii mooy li nga xam ni moo raflé woon ci arène politique bi parce que nag bariwut ci parti politique yu mu am parce que président Macky Sall nag tas na parti yu bari. waaw mm-hmm. ah mm-hmm. tas na AFP. AFP tas na Malick Gakou AFP la nekkoon. Mm-hmm. rajo xoo na fi mu doole AFP kenn xamatul ku fa ne. tas na parti socialiste partie boo xamante ne bi def na fi plus de. quarante ans tas na fi mu toll nii socialiste ya ñoom xalifa jaar nañ ñale ñale jaar nañ ñale tas na PDS. PDS rajaxoo na ñii aw na ñii fitir APR lañ mujj doon ñee nekk leen ñee nekk ñeneen ñi nekk ci lu kenn xamut di xaar ku du di ku demut ñëwut mooy parti boobu tas na defe woon na ni bu jaaree fii yëngal mbir mi dana yëngu mais li ko jaaxal ci Pastef mooy loolu la mënta am mais jeexagul de waaw ah, <laughs> jeex na kay ñu dolli. ku nekk sa stratégie ngay. non non stratégie xam nga Pastef ni mu juddoo ak ni ñee juddoo bokkuñ. waaw ñee dañoo ñëw ci parti politique ngir jariñu woon ci. Mm-hmm. ñii nag ñoom dañoo sampoon parti politique dañoo samp parti politique ngir jariñ réew mi fekk intérêt réew maa ngi taxaw. Mm. seen projet bi nga xam ne moom lañ jàpp ni moo mën a defar réew mi. Mm. dara mënu koo tas donc loolu mooy li nga xam ne foofu la échec mm. waaw. <laughs> en :fra tout :fra cas na waar mi noonu